ak yéen seetaan ak di nu déglu fu ñu mën a ne ci àddina si di ziyaara di ndokkeel Seex Muhammadul Muntaxa ci sahru safarul xayr bii nga xam ne dugg nañ ci di weeru sëriñ bi ci jataay bii ñu toog nag sama nuyoo maa ngi koy teg ci loxol sëriñ Saalihu ak i rakkam ak i bokkam ak i taalibeem muy njabootuk Cheikh Mouhamadin Moustapha moom Cheikh Mouhamadin Fadil di siyaar it sëriñ Abo mi nga xam ne moo ne ci bopp kër sëriñ Fadilu di nuyu bokk yépp di leen ndokkeel ci weeru tedd wi wax ji moom lu mën a gàtt la waaye nag wolof dane ku wal mburu tudd dëkk kon li waral la tàmbalee ca benn fan ba ba ca fukki fan yaak juróom-ñett murit yëpp war koy màggal mooy fa mu toll sëñ bi moo tax ñu di ko dàkk bis bii nag jëkk ci weer wi dama taamu woon ñu tudde ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mii ne ko sama set bi waxee rek jubluwuma ci lenn lu weesu ñu jàngataat ci moom laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab maa kaana hadisan yuftara sëriñ dafay jëmm joo xam ne lii tubaab jaguma tubaab nag ngeen baal ma waaye li ñuy li ñuy woy leadership leadership te boo ko doon wax ci wolof xaw ma nu ñu koy tënke waaye du weesu njiit lu mat njiit da ko doonoon jamono ji nag dafa laaj gone yi dooru jóg ñu jàngal leen sëñ Moodu ñu jël ci loo xam ne dañ ko mën a def bind bis seen ñu di ko xool ni nit di yilife ak njabootam ni nit di yilife ay rakkam ni nit di yilife ay taalibeem waaye ni nit di nekkee ci ronu ay baayam ak i kilifaam yooyu yëpp da dajale te yoon wi laaj ko fi na ne jàngataat ko waaye réew mi laaj ko jamono jëppit laaj ko loolu moo tax ma tànn sëñ Moodu mu ubbi ko ma am ci yoom tawféex yu bari yoo xam ne yenn yi samay jataay la ak moom yenn yi ma am jataay ak doomi Serigne tubaa mu seere ko Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Abdoul Khadir toog naa sëñ Abdoulaye ne gisuma ku ko gën a doon murid sàrdi sëñ Mouride parce sëñ Touba gën ko doon murid xawma ko nit nag mën na ko gën a joŋe sëñ Mouride nit mën na ko gën a joŋe waaye gën koo doon murid sàrdi xawma ko keroog ba sëñ Fadilou génne àddina mënoon na ne naa ne ba suba wala gannaaw suba waaye ci escalier jumaa ja la ko fekk ne ko dane moon fu ma la noppee foo ma noppee gis rek demal ci sëñ bi laa jox ko sa ndax mooy sëñ Tuubaa kon maa ngi jëbootu suñ fallu gépp ngi te boobu denc guñ suñ fallu la war a royo moo ma nettali boppam ne ma bi suñ fallu woo sëñ Abdou ne ko damaa bëgg nga dem wëri sama sa moomeelu bàyyi gépp ñu xam la mooy li El ji wax léegi ne man sama cere cere cere bàyyi jaambur du ma ko miinal sama doom moo tax mu samp sëñ bi laat sampi wér ne ko fu taalub sëñ Tuubaa ne dem fa sëñ bi laat di wër bu alxamesee mu fanaan si Tuubaa liñ ko jox lépp du ci laal dara dikk jox ko sëñ Fallu julli ajjuma dañ ko gontal ba réew mi day fu sëñ Tuubaa ma sa def dara rek dem na fa te boobu sëñ Fallu waaj na ba jekk waaye da ko doon won nit ñi ne bu ngeen ma gisatul mooma sëñ mutu ne ma bi loolu amee sëñ Abdul da dane ma li ma sëñ Fallu digal digal kër ne fu sëñ daree sëñ ne na nga fa dem wër naa ko ba dajal ko waaye yow laay tëjee loolu sa kër laa ma ne ko waaw loolu bëgg naa ci lool saam mm-hmm. nee waaye nag du def dara lu ma waxut sëñ Fallu ma yónnee ndaw sëñ bi fi saasa ne ko sëñ Abdou kat daa wax ne loolu yi nga ko digaloon tukki bi mu doon wër daa bëgg tëje ko fii ci sàmm ma di ci laaj ndigal mu ne waaw waaw lu fa ne bàyyi ma ko fa def <laughs> waaw ah baña waaye bu dikkee nag dama fa fekk rek dama fa fekk <laughs> nee na bi ma dikkee ba ganaale ba jox sama addiya bay dem ab jàllaa bi la sëñ Abdou yëkkati ne ma sëñ Modou ma ne ko Mbàkke mu ne ma fettalul ñaari ndimmi ñu ngi da nga ciy tooñ pay ci man damaa xam diggam ak bokk yi damay wax ne sëñ Fallu am lu mu ko rafatale sëñ Fallu la yàlla may ay bokkam gëm ko ay nawleem gëm ko waaye loolee de ko rafatale sëñ Mudu sëñ Mudu la ay nawleem gëm seeti sëñ Tuubaa yi kuñ gëm xaw ngaa dee te noonu ñëpp dañ koo gëmoon lépp ëpp ci nun moom doomi sëñ Tuubaa rek ngay nangu mu ñaanal nga gëm ko ba mën ko wat waaye sëñ Mudu moom ku ci ne ci nun jàpp nga ne boo ko ne dogal ma ci nangam ak defal ma nangam boo génnee man nga ko wat loolu yàlla ko may yii ngay wax yëpp moom ma ko nettali bopp man damaa amoon tawfeex ci moom maa ngi fàttaliku mel na mbokk moo xam ne dafa bëggoon soxna te soxna si jege sëñ Mudu lool Moussa Dieng mais xam ne ki may wax ndax jege na ko lool ma dikk di ko wax tàmbali nag di ko liiral leeral mbo mbo mbokk mooma fa mbokk ak alxuraan ak nii lay def nangam bëgg mu mu nangu wax ji tàmbali gudd rek mu ne ma Abdou Samad xawma ko yow laa xam fii loo bëgg am ko waxal li bëgg rek ma defal la ko waxal ni nga ko bëggee rek jëm te sax kooku moo nangam de waa rek laa xam fii daal loo fi bëgg am ko toog naa fi yëruma dërëm bëggu jiw fekk ko ci këram na ko ah, man na Mbàkke damaa dégg ñu ne kiy joxe jiwu sab taalibe mu ne ah sab taalibe man ko damaa bëgg jiwu de da koy jiw wala da koy lekk man dama koy lekk léegi léegi léegi léegi ma ne waaw góor yaa set ñu bari loolu de maxtaar woon ma diw mu daal di koy sant Jóob jox ko li mu bëgg ñaata nga bëgg ma ne ah, man de bu ma amee diitoon ne kemb du mu baax ma ne ah, waaw jox ko ko nu mu gën a gaawee waa ji ne ko fu mu ko bëggee ma ne ko fu gën a gaaw rek mu ne ma ne Louga gën a jege Touba ma ne ko bismillah nay tey ma daal xëy dem Louga ñu jox ma sama dix tonnes ma jaay ko muy trois millions dëkk fi koñ bépp tàmbali di fi neexaat lekk afra yëpp suñ mu dafa jaar gaañ noonu noonu noonu ci zahir nag ne lay jëflante gi ci batin nga xam ne da koy danga koy danga nga koy càmbar nag ba xam ne suñ muudu mii nag du du du du sëñ Modou kese rek nag dañ ko duy ba mu fees del te liñ ko liñ ne ci moom yàqu ko mu téye ko denc ko loolu ngay nettali moom ma ko nettali ñaari xissa nga boole yow muy benn xam naa gaa sonn nañ nag ci jataay bi waaye dama bëgg rek ñu jëriñ nee na ma am naar dafay ñëw boo xam ne dane sëtub si si seex sii di yële mhm. ànd ko jaamam biñ njëkkee ma ma ma sëñ sëñ Fallu ne maa ngi leen dalal ne leen suba dinaa leen yeewi dinaa la jox sa addiye sa jàmb it naa ko jox li ma koy jox ñu koy alal na seen ndaw rek dara amut ma ne suñu fallu moo mais de booba bu ko neexoon bu tibbee suuf si rek mu doon or waaye benn dërëm fanaan wu te du wuti fenn te bu sañoon li mu wax it du dañ suñ muti ñëw mun ko ah sama bët xonq na de sama bët xonq na de sama bët xonq na ah mbaa kenn tax sa bët xonq waaw doomi sax si di yi rek seen i dañ daan ñëw si bi da jox addiye mu ñëw fi mook jàmm ma war ko jox ñaar fukki junne jox jox jàmm bi fukki junne yóbbu ko te tey dara ñëwul rek dara ñëw fi dara ñëw fi dara ñëw fi ma ne ko mbàkkee ma ma ma jéggulu kon dem ci kër ga te ñu mën ah dem la waaye dara ñëw fi dara ñëw fi nee na ma dikk yëkkati loolee mu soxla boolewaat ca leneen dikk jox ko loola ba noppi ne ko li nga war a jox naar bi dee ngi waaye li ki ko andi moo ko tuube yeesale ko pastéefam ak taalibeem ci yow nee sëñ fan lu ñokkit fukki tànk yi daal di fa tapis bi mu yoroon tapis boobu bi nga wax naan lal na ma ko ne ba ma tëdd si daal di daal ko nag xëpp ne ko boo demee neel galas bu la neexee bañ a defati dara neel galas galas mooy jalas <laughs> waaw baatub galas ji la dugal sëñ Fall da daa wax ab dëkk boo fa amee mag am fa rek booy ba nga ne jalas mooy jekki rek toog waaw waaw loolu la sëñ Modou ngi fi sëñ Bassirou ngi fi bu ñuy laaj laaj sëñ Modou Moussa bu muy yónni bu ñuy yónni yónni Bassirou fal daan jalas jalas ne ma sànni ko tab bi nag waaye bu la neexee neel jalas bul defati dara waaye maa ngi lay xamal leen de mun nga mun a weexal nga mbët soo xam ne day ku ko weexal sa bët du xonqati mukk sëñ mu daan wax ne lu ngeen gis ma dogg ko dogul ko nit damay teg loole sama kanam rek daal di koy wax automatiquement eh. li ñëw mu la bëgg bii ngay wax ci suba gi dafa xëy si di indi addiyam te bett si fan lool mu teel lool nag waaw magum tukk loolu mu xëy suba teel nag rek fajar bi mm, suñ fa loolu xaw a sàngu noonu julli ba noppi wér du tuuti tuuti noonu mu jeg-jeg nuyoo salaamaaleykum kooku waaye kooku mu mu ne teel nag suba teel gi ni ñu koy nuyoo nit dafa teel lool waaye mu diyeetum ah kenn du ko def mag ah kon dinoo indi sas bi rek million bi ngi daal di ko def ci lu ma tuubee kon waaye addi sas bi laa doon andi rek mu ngi noonu mu ne tax waay jóg jot na waay taxawal waay ah déedéet jug na waay jug jot na ah déedéet jekkil leen ma mu daal fa mu daal mu koy buux ne ma acca waay lekkal li nga bëgg acca ah sasu na nga de ku koy ma mun maa fas fasal ma rek fasal ma rek mu ne eh ceddo ako muus ako muus daal di fa am ndab ñaan ñaan ñaan li muy ñaan cëli ci ne ko eh, ci bisimilah mu lekk ba noppi la ca des mu foog ko yeew ko boobu ne ngodd ci ay yéeram yóbbaale kër ci kooku mooy Seex Mamadu Mustafaa Fadil doomi Sëñ Tuubaa nañ ko sët Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko taalib Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko boromam mi mu doon jaamu gërëm na ko sallallahu alayhi wa sallam gërëm na ko kon nag ku kenn fàttalikuwut ku mel ne ci jikkoom ci pas-pasam ci ak taalibe ci dimbali taalibe yi ci bàyyi fi lu ñëpp mën a wane kon ko kooku jamono dafa laaj ñu jàngataat ko wone ko ba ñëpp roy ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala